jërëjëf sëriñ <clears throat> Mahamadou Lamine xam naa euh, damay jëkk jaala lislaam ak yoon wi ñaari jàmbaare lislaam yoo xam ne dañ fee dañ fee jóge ci weer wii daanaka ci jamonoy tabaski rek nekkoon ci ñaari kër ci kër yu mag yi ci yoon wi kenn ki mooy sëñ Abdoulahi yàllaay buur mhm. nekkoon ci bopp kër maam Mor Jaara mhm. ak sëriñ Moustapha sëriñ Masamba nekkoon ci bopp kër ga moom itam mhm. li tax mën naa cee boole soxna Daba Mbàkke bi nga xam ne sax moo desoon ci doom bi maam Cheikh Anta yi moom itam ci si lu leen ñu koy siyaare waa kër sëñ Abdoulahi ak kër nga xam ne fa la doon liggéeye ñoo ñu mu tudd itam dañu fa dañuy dalal xel ci yoon wi mm-hmm. ndax kenn ku ne ci ñoom mm-hmm. penc ma nga yilifoon danga fa faa bàyyi mm-hmm. naalub jumaa juma joo xam ne budget ba ëpp na milliard te kenn ku ci ne bi nga fiy jógee bàyyi nga fi loo xam ne buñ ko ca defee mu sori mu sori lool bu dee sëñ Abdoulahi juma ji mu tàmbale woon ci Mbàkke budget bi milliard bu teg la woon ba gis ngeen ne lañ ca bokk na ca lam ca mujj a def mooy àddi yooyu Cheikh Mountakha joxe woon. Mhm. gannaaw bu ñu waree. Mhm. nga xam ne lépp lu ca mason war a def ba bunt yi ba mu tëjee la man na si ne mën na noppi na bàyyi na ko fi. nga xam ne kon la ca ëpp juróom-ñeenti téeméeri million def na ko ci. Mhm. te li tax mu nekk misaal mooy moom moom ci boppam. ba muy ñëw Mbàkke yi nekk xalifa bu Maam Mor Jaara këram jóge ca Misra. Misra gii. néegub Kaskaare ba mu fa bàyyi woon. dara dolli koo ci ba fi ne nii nga xam ne jumaay milliard ak nangam ji mu daanaka mu àgg bu bu bu fekkoon daa génn këram di ñibbi misra gam jóge woon mhm. néegub kaskare boobu ci lay duggaat mhm. kon nag dafa mel ne lañ doon tëggee Cheikh Mahamadul Fadal mhm. bi jumaa ji àggee mu ne jumaa ji toll nii mu tabax ko dëkk ci néegu baraag ak yu demee noonu lu mat lu jege juróom benn fukki at gannaaw bi ñu mën a tagge lu ko nuru lu ko jege kenn ci njabootu sëñ Tuubaa loolu li muy wane mooy ndoonool sëñ Tuubaa li mu fi bàyyi te mooy ndoonool lislaam daf ne woon ndoonool lislaam laa fi bàyyi ci dañ may donn waaye de suma donn ci xooy xëy àdduna bi xidmatil quraani wal hadiisi yathbutu laa bi dahabin mawruthi sëñ Moustapha Massam mooy lu mel noonu la ñu mën a wax ci ñoom moom ñoom moom kon kon ndoonal yi laalul suuf taru du laal suuf incha allah ne mm-hmm. mm-hmm. ko Cheikh Mountakha di ne ko Cheikh Mountakha faral di waxee. Mm-hmm. bu ko defee nag noonu ñëpp. gis nañ li li xew ci àdduna bi mbas mi daj àdduna di musiba mu rëy moo xam ne mi ngi wàcc ci kaw daanaka ñëpp bés bu ne daanaka ñu tàggee la kenn wala mbooloo bu ko defee nag dañuy jëkk ñaan sàkku ci sëñ Tuubaa ci boppam mu tiinul ñu ci boroomam di ko jaarale ci kàddu yi sëñ Bay Jaxate yooyu mu defoon sëñ Bay Jaxate kenn ëpp ko taw tawxiid kenn gënu koo gëm yàlla waaye ba lu mel nii xawee di mbas lu mel nii mu demee rek wala nu ko raw dafa yëkkate woon kàddoom sàkku ci sëñ Tuubaa mu tiinuñu woon ko ne sunu doyee deeg ñàkk solo bum bum bum tee nga ñaanal ñu ak mucc daal di tàmbalee xasida ga ne sagam gaaya bay daa la xal seeta añ ku xam gaa yi dul bay fu ñu lekk kon mhm. ne bu fekkee ne yow Bamba mhm. may yi nga yor ñi gën rek a ciy jot na ngay def ñi bon te yaa yor cërub gaa yi baax ak yi bon mhm. faral jox ma jox ñépp jox ñi fi man taboone balaa kenn am lëf ci man dafay mel ne man bu yeboo ñibbi kon nda yow doomi nit dootu mel nii nga mel te gëñ naa ne wax ji sore naa kefel ne ko waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee waxal nag ci mbas mi sa nit ñaa ngi jee tinul ñëpp yow boo tinu yàlla tin boo ab sàmm ne cell jur gépp jee bu jur gépp jeexee lu muy sàmm ko kon noo ngi jaaral ci kàddu yooyu ci làmmiñu julli yeeg murit yëpp di ko sàkkoo ci Cheikhul Khadim boo defee ndigal li nga xam ne jóg na ndigal moom bu jógee ci murit jëfe rek moo ca war a topp ndax dañoo yeesalu jaayante ci moom mi joxe ndigal Cheikh Mountakha jaayante ga mooy gu jëkk ga rek mm-hmm. diggante yonente bu bu tedd ba ak saxaaba ya mm-hmm. mooy dox ba agsi ñun la si ñëpp laa waxoon man awfaa bi ahdihi ja rek ca la ca la ca la ñu duggee mm-hmm. sunu dafa jënd ci jullit ñëpp seen alal ak bakkan fayee leen aljanna kon sa ñëpp laa teg ca ne nit ki lu mu jaay te yaakaar a jot ca njëg ga moomutu ko sunu lépp Sëñ Tuubaa ko moom kon ndigalam loolu bu jógee jëfe moonu ca war waaye nag ci kaw jàngat mën nañoo jël ndigalam loolu teg ko ci misaanu sharia natt ko ci danañ gis ne ndigal lu diis la lu am poids poids bu rëy bu muy peese la bu ko defee jàngat googu danañu dolli yaqiin dana la jolli yaqiin ba mën nañoo gën a mën a jariñu ci ndigalu sëñ bi ni nga ko waxe ni nga ko waxe léegi ndigal la itam bu jógee xat-xati àdduna ak fi mu tolloog ndigal moom bu jógee jërut xalaat mm-hmm. ndigal du ànd ak lor mm-hmm. sëñ Tuubaa na fu mu koy nattali naa mm-hmm. ne bi mu nekk ci géej gi dafa am bés kilifa tubaab ci kilifa yu mag yi war a ñëw ci dëkk ba mu nekk nee nañu tàmbali di defar mbedd yi di ko setal di samp drapeau yi ngir di ko séentu ay fan nee bi ñëwee man la jëkk a laaj jaawal si ci sama nekk ñu andi ko mu nuyu ma jaar ci sama tur jaar ko warmaal nee na bi ma joxee loxo ba ma indi yi ba ma tàllal sama loxo ba koy jox ba jox ko kàddu jóge ci kaw asamaan ne ma yaa ayyuha alladina amanu innamal mushrikuuna najas wan ko ne yéefar yi sobe lañ wareesu leen a waru leen a jox loxo ci maanaam nee ma daal rocc ci sama loxo bif ko bif bu dëgër ba mu xaw a terter yi moom kilifa ak tubaab boobu nee wax ki ko doon interprète ne ko nee ko man bokkuma ci ñi koy bañ wala bokkuma ci ñi ko génne diw rek bokk ci mbokkam ci waa Sénégal mm-hmm. moo ma santoon bu ma ñëwee naa ko ko nuyul feeñal ko ak cofeelam loolu rek moo ma indi nee na sëñ bi nee na ma ne ko nee ko man li ma def defuma ko ngir jafe ne damaa noonu mm-hmm. nee na ba mu dalee nag ñu jox ma ndigal nañ ma joxe woon ndigal bu ko nuyu joxaat ma ndigal na ma teral ko mm-hmm. nee na ma wut mburu ci seen mburu yu saf suukar yu neex yooyu yu ci bari yónnee ko mu bég ca lool sëñ bi teg ca ne bu fekkoon kuy jéem a feeñalu njàmbaar la waaye aw wala fit du ca génn mm-hmm. waaye laa darara maa al idni la ca teg ndigal bu jógee moom lu metti metti lor du ca mm-hmm. juddoo kon nañu dalal suñu xel ci mm-hmm. ndigal ndigalam lii ndigal li ñaar la sëñ sëñ la bi li mu joxee ndigal mooy nañu jàng xasida mooy xasida mooy zikir zikir kenn mënu ko génn ci lislaam pacales mooy itaam dégg laa dégg naa la nga ne daf ne ay téeméeri téeméeri téeméeri nag mm-hmm. kon zikar la joxe ndigal ak mm-hmm. joxewu ñam mm-hmm. léegi ñaar yooyu buñ ko jàngatee ci diine bu dee zikar moom alquran la mu wax mooy moo gën a màgg lépp sëñ Tuubaa naatal na ko ci téere ba amma dawaamu zikri fa huwa akbaru min kulli ma kaana al muridu yuksiru nee na bu dee zikar tudd yàlla moo gën a màgg lépp lépp lu murit di bareel ngir jege ko boroomam amee ko ngërëmam nee na dikkar moo ko gën moo jëfete kaw ne wa kullu man saalanii fa lil jawaab képp ku ma laaj am naa tontu mooy qabla wala tujaadilu ahlal kitaab mooy baadee jiitu wala tujaadilu xis boobu muy sunu borom dafa ne wala dikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a màgge borom xam-xam yi wute nañ ci wala dikrullahi akbar am na ñu ne lañ ci jublu mooy tudd yàlla ci biirug julli mm-hmm. am ñu ne déedéet lam ci jublu mooy tudd yàlla ak jaam bi yàlla tudd gi muy tudd jaam bi bu ko tuddee mm-hmm. moo gën a màgg jaam bi ko tudd gi ko jaam bi tudd mm-hmm. am ñu ne waxi kaw ja rek lay tekki tudd yàlla gën a màgg lépp lay min loolu la sëñ saxal fii tudd yàlla googu sëñ Muntaxa woote nag ca mooy jàng xasida tudd yàlla doy na ca sëkk aw yiw li suñu borom ne fadkuruni adkurkum tudd leen ma ma tudd leen ku ñu wax Saïd ibnu Jubayr ci taabi'oon yi la bokkoon dafa fiiri loolu ne sunu borom li mu bëgg a xam tudd leen ma fàttaliku leen maanaa ci xéewal yi mhm. ak ci dundug yolob yi fi shiddati war raxaa bu ko defee azkurukum fi shiddati wal balaa bu ngeen mhm. tollee ca tartar yeeg balaa yi mhm. ma tudd leen fàttaliku leen génne leen ca te loolu ci lañ toll fi mu ne nii tudd yàlla moom sax na ci alquran ne day génn nit ci ci xat-xat tudd yàlla loolu sayiduna yunus alayhi salaam mhm. ba mu duggee ca géej ga mhm. jën wa wan na ko mhm. wan na ko ci biir géej gi sunu borom daf ne fa lawla annahu kaana min al musabbihin la labita fi batnihi yow yawmi yubaatu ne yunus moomu bu fekkut bokkutoon ci ñiy sàbbaal yàlla te mooy ñiy tudd yàlla ci biir jën wa lay sax des ca ba kero bis penc ñuy dekkal ñuy dekkal nit ñi te te boobu moom ke ke foog kenn ku ne fa nga nekkoon da nga fa jógee ndax ñëpp ay tawee bis ba kon tudd yàlla moo ko génn defe naa xat-xat mënut a weesu na ci biir jën wane ci biir géej mhm. tudd yàlla ko fa génnee kon mhm. lii sëñ mun taxaw wootee mën naa génne ñëpp ci xat-xat yooyu la ca topp mooy joxewu ñam da mhm. ne nañ nañ moom ci boppam mu tàmbalil ko boppam joxe li mu xaarafi tuuba vingt-huit ci nag joxe ko ci bari go ceeb bu ko defee joxewu ñam woowu nag moom itam gis nañ buñ delloo ci alquran suratul insaan sunu borom bari na xéewal yu mu fay digg digge digge ëllëg waaye ñam koy jox kenn jiituwu ci ñay ñay ña doon joxew ñam wa yut'imuuna ta'aam gis nga ci ca suratul balad sunu borom ma ngay wax ne am na gàllankoor yoo xam ne day tee nit ki dugg aljana ëllëg mm-hmm. waaye am na yum tudd ne mënees na koo jéggee gàllankoor yooya wa ma daraka mal aqaba fakku raqaba aw itaamun fi yawmin zi ba mais na bokk na ca yiy jéggee gàllankoor yi ba mën a dugg aljanna joxewu ñam ci bis buñ ko soxlaa kon joxewu ñam lu lu lu lu màgg la ca lislaam yonent bi waxoon na ca xadis boo xam ne muttafaqun alayhi la xadis bu wér ne wattandiku leen sawara lépp lu leen ci tee dem nangeen ngeen ko def donte ci xaaju tàndarma la xaritu tàndarma xaar tàndarma nga jox ko koo soxla rek mën nga ci mucc ci sa waru dugg aljanna ittaqu naara walaw bi shiqqi bi shiqqi tamra loolu la waxoon kon joxew ñam noonu la noonu la toll dem na ba ne xiyaarukum man a man ataama taam ki gën ci yéen mooy kii mm-hmm. ki gën a mën a joxew ñam mm-hmm. gis nga euh, kooku nga xam ne xaj bu mar rek mm-hmm. ba bu marut bu naanut mën a loru la xettali woon ab xaj sunu borom jéggal ko ci saxaaba yi ba ba ba ko yonante bi waxee dañ ne ko wa inna ba fil mi la ajran ba ci bàyyi ma yi sax mën nañ cee jële ab yool mun a leen lépp luy boroomu res wuy tooy rek ab yool a nga ca maanaam lu amee bakkan rek mhm. sun boroom mën a la ca defal ab yool kon muy dikar muy joxewu ñam ñaari tal mooy ndigal li lu ci ne rek la na ci bi yool kenn xamul lu mu toll la ca na ca lu mën a génn ci nit ci xat-xat kenn sunu borom rek mu xam waaye nag lépp ni nga ko waxee léegi mm-hmm. na tegu ci nañu fas yéene jëfe ndigalam li rek ngir yàlla ngir yàlla dañuy wax ne mm-hmm. ngir sunu boroom nangu nangu jëf mm-hmm. faw ñaar yi mënu caa ñàkk jëf jën na dëpp ak sunna sunna mooy yoon wi yàlla rëdd yonent bi leeral ko na dëppoog bu bu mu génn sunna te na nga ko def ngir yàlla mm-hmm. ñaar yooyu ñaar yooyu munta ñàkk ci mm-hmm. ci ci ci ci jëf la rawatina lu jëm ci xasaay di sëñ Tuubaa yi nga xam ne dafa wax moom ne mm-hmm. xasa yi day jëmut ci lu dul jëmmi yàlla ak liggéeyal yonante bi lam yanxu xatti xayra wajhillaahi wa xayra xidmati rasulillaahi loolu la sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa wax muy euh, bund bu am solo xam naa sëñ Abdou dinañu ñëwaat foofu ci xasida yi ndax yaa ngi ubbi bunt boo xam ne euh, tey lii nga.